a ci lu jëm ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal gi nee na Aminata Mbengue bi jiite parti socialiste ñoom nee nañu jamono ji ci lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall Macky la ñuy dégloo Macky la bàyyi xel Macky la jox nopp bi yéenekaay gi di bés bi xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko Adji Sarr Ndeye Khady Ndiaye seen dossier bi benn attekat bu tudd Amath Sy la ko jox ngir nag mu daal koy atte ca chambre daal di yàq deram yéen a kaay gi de la sax xëy di ñu xibaar nan ñu Aminata Touré ak Guy Marius ñaari député dañoo demoon nag ci conseil constitutionnel ngir nag daal di fay kalamee ndax ñaari député yi ginnaaw bi ñu sàkkoo ab question d'actualité ci lu jëm ci rapport Cour des comptes bi maanaam gouvernement bu Sénégal ñëw assemblée nationale andi ciy leeral te gouvernement bi lànk loolee moo taxoon Aminata Touré ak Guy Marius Sagna dem ca conseil constitutionnel waaye nag seen bëgg-bëgg leen ko daal di gàntalal ñu li nga xam ne moom la Cheikh Yérim Seck bind yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na audience bi nga xam ne moom la ñuy wax diggante Macky Sall ak Marine Le Pen mu toll si ñeenti waxtu yéen kaay gi nee na Aminata Touré ak collectif Frapp France Dégage ñoom nag ñaawlu nañ ko bu baax a baax nee nañ bu dee information dëgg la maanaam ñoom lu ñu ñuul ñi waaye nag Aminata Touré nee na ñi nga xam ne ay sénégalais lañu nekk sa diaspora bi ak africains yi nekk ci diaspora ki nga xam ne mooy Marie Le Pen ne dafa bañ nit ku ñuul yéenekaay gi di bés ne am na audience ak Macky Sall yéenekaay gi di enquête nee na relation ak Afrique waa états ñoom nag nee nañu Afrique ñëw ñu def relation waaye nag partenariat la boo xam ne gagnant gagnant lay doon ñi nga xam ne ñuy waa états ñoom nag ñoo ngi jéem a layal waa Afrique ngir nag ñu mën a wàññil leen bor bi bor bi nga xam ne réewu Afrique yi amel nañ ko waa adduna bi ngir soit xëy dañu xibaar naan ñu opération bi armée bu Sénégal di def ca diwaanu Casamance armée bi nee nañu am nañu kenn ci ñoom koo xam ne rey nañu ko ak lu toll si juróom-ñaar ñoo xam ne am nañuy gaañu-gaañu yéen kaay gi de laas wax ci grève transporteurs yi taximaan yi ak kalandoo yi yokk nañu paas bi jamono ji seen bambamaas na maanaam ñoo ngi ciy seen bopp bu baax a baax yéen kaay gi de ay négociation yoo xam ne démb waroon nañu ko amal diggante ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi ak ministère bi ñu dénk wala dem bég dikk bi Mansour Faye ak ñoom góoru xumaak laj ji yéen a kaay gi nee na grève bi kon dafay continuer l'observateur nee na tiktokeur bu siiw bi di sàmbaka ñëpp xam ko ci rang muy gaaw kooke nag dañu ko teg loxo ci lu jëm ci wàllum sàcc ndax moom sàmbaka ca diwaanu Linguère dafa bàyyi ba guddi jot mu dem ubbi ab boutique dugg fa di ngar daajoo xaalis ba fekk am na ay caméra de surveillance loolee moo tax ñu teg ko loxo ma ngi ci garde à ba ñu ko laajee nee na demande sociale bi maanaam dëkk bu metti a kaay gi ko ba